Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Euh, man ma am nu ma mel ak Cheikh Diop wala ma am nu ma mel ak Ali Sow bi chaque jour de gauche à droite ñu ngi ñu ngi xeex ñu ngi ñuy ñu ngi ñu ngi dégg si lu ñaaw léegi mu dee wala man ma dee famille Ali Sow ñëw seet suma famille ñëw témoignel ma lu baax wax ma lu baax mais lu baax loolu yàlla du ko dégg parce que du dëgg. kon donc juge Samba Sall responsable la si li nga xam ni moom moo fi amoon fan yi dans les dans les jours pas dans dans les mois passés parce que ñëpp xam nañ ni tey problème mu Ousmane Sonko Adji Sarr dina am ala kulli alin dinañ àtte te man bu ma sañoon du ñu génn bu ñu korité ba pare rek ñu àtte leen kenn ku nekk xam fooy féete. parce que élection yi ñu ngi ñëw ñu xool enjeu yi ci nekk Ousmane Sonko xam fu muy féete Adji Sarr am fu muy féete ñi faral Adji Sarr am fu ñu féete ñun ñi faral Ousmane Sonko ak ñeneen ñi nga xam ne faruñu fenn kenn ku nekk xam foo en fait loolu la ñëpp di xaar quoi mais bu ñu fàttee aussi li indi coow li li indi coow li ñëpp mën nañ gëm ni président Macky Sall euh, départul ci coow li commencé wu ko débuté wu ko mais bi mu ci amee jafandu na si jafatu na si gis nañu ni affaire yi amee arrangé tout pouvoir bi sur le plan euh, de la communication gagné nañ leen ci communication parce que tamit yàlla dëgg rek la bëgg quoi gagné nañ leen ci communication ci plateau télé yi gagné nañ leen ci communication ci réseaux sociaux yi gars yi faj nañ leen faj bu metti léegi nag ñëpp ñu ngi doon xaar justice boobu mu doon benn justice boo xam ni dañuy convoqué Ousmane Sonko mu ne du dem par la suite mu mujj dem euh, mu génn tranquillement dox dem ñu àtte ko ñu jël procès bi caméra yi dugg ñëpp xam fu mu féete même bu Antoine Diome faree wala juge bi far après bu ñu gisee projet bi nit ñëpp teg ci seen bët Ousmane Sonko di wax ñu koy laaj muy tontu ay avocat am di laaj Adji Sarr muy tontu laa bu boobaa même bu justice bi jengee wala mu jël décision nit ñi dañ ne ah lii nag jaralatuma wàcc si mbedd mi. parce que moom en personne moo wax moom Ousmane Sonko en person moo wax lii nit ñi ànd ci Adji Sarr moo wax lii nit ñi ànd ci juge bi moo wax lii nit ñi ànd ci. xam nga bu boobaa du am du am du am ay farfarloo quoi mais tey benn juge Samba Sall moo créé benn 14 morts. moo créé quatorze morts yi am nii ba quinzième bi ñëw fekk leen ci lan ci dañu convoqué waa ji ci benn façon boo xam ni euh, suñ sañoon tey mandat dama ne lay am ñu patam patamee ko yóbbu ko jugé ko tension bi am yëpp Sénégal ak morts yi am yëpp juge bi moo ko waral léegi nag bu leen fàttali juge Kéba Mbaye daf fi bàyyi woy bu rafet ba fi mu nekk nii si histoire da ngay duggaat ci réseaux sociaux yi dañ koy gis comprendre nga da ngay gis maam Abdou Aziz Dabakh ñaata at bi mu nelawee ak léegi am na ci ay génération boo xam ne tey fekkee wuñ ko mais dañuy dégg ay vidéo am si si si domaine u Kéba Mbaye boobu dañuy dégg dañuy dégg ay ay discours am ba léegi nit ñi duñu ko fàttali mais léegi ñun bu ñu toppee ay nit am na ñoo xam ne seen sëriñ sax dama ne la seen sëriñ ak seen papa ak seen yaay ci ci ci ay valeur lañ ko toppee en fait kon donc man am peut-être même boo demee sax ba ci Pastef ba ci Pastef am na ci ay nit yoo xam ni topp ñu Ousmane Sonko parce que jànguñu xamuñu dara to xool mënuñu la programme bu Pastef lii la munuñu la wax programme Ousmane Sonko lii la mais dañoo gis waa ji ànd ak benn val benn benn benn honnêteté ànd ak ànd ak benn discours ànd ak am lu muy trans am am loo xam ne moom bu waxee ñoom da leen di waxal am comportement boo xam bu ñu ko gisee ci moom dañuy gis seen bopp donc il faut ñu def différence boobu en fait même sëriñ yi ngeen xam ne ay sëriñu tariyaax la ñii ay sëriñu ay kilifa diine lañ nekk ci ay tariixa dafa am ñoo xam ne ay valeur la ñu leen toppee seen xam am na ñoo xam ne topp ñu leen parce que ñii dañu am xam-xam boo xam ne ñoom amuñu ko non am na ñoo xam ne leen topp ndax seen jikko ak ak ak seen démarche d'ailleurs tey loolu moo waral tey kuy sàkkal pexe Ousmane Sonko ci affaire viol c'est parce que valeur yi muy incarné lañ bëgg a jël teg ko na nale bu ñu ñëwaatee ci ci kaawu kii nga xam ne mooy le juge euh, Samba Sall mais gars yi nañu waxante dëgg problème bi am fii Sénégal yépp si juge bi la jógee malgré les comploteurs ont fait ce qu'ils devaient faire parce que seen la aussi parce que ñoom dañ ko doon def uniquement pour noyer gaayen bi far ñoom ñu mujj noyer d'accord na mais juge bi tey amoon na benn maturité bu mu doon am am fu mu doon toll ci dossier bi bi ko waa ji rejeté moom mu jël ko moom moo ci waroon wane benn transparence boo xam ni ñëpp dañ naan toog leen parce que juge bi moom mu ne nañ indi Ousmane Sonko nee na may na ko heure bu excès baax na communication bu tey déjà bu ko defoon rek jox ko préfet ne ko noon may leen ko fu ko neex na jaar bu excès baax na presse bi ñëw mu ne non ñëpp nañu dugg mais nag quelques person dugg nañ ko def en direct ñu wax li ñuy wax ñu Sénégal yëpp jot ci. kon lii du am am na ñoo xam ne boobaa du ñu génn seen kër nee naa leen combat bi kenn ku nekk ak nu ñu si dig ak nu ñu si duggee am na ñoo xam ne bi Ousmane Sonko waxee def discours wax ne demoon naa fa mais lii ak lii la immédiatement ñoom ñu gis valeur bi wa bi waa ji am ak comportement bi mu am ak li muy incarné ñu ne kon dañ ko complot am na ñoo xam dañ ne non man ba léegi gëwuma ko. am ñoo xam ne bi ñu demee nag ba gis injustice ñu teg ko ci kaw tali bi fii ngay jaar doo jaar fii am na ñoo xam ne loolu moo leen dugal ci combat bi te loolu yëpp kan moo ko indi le juge Samba Sall moom moo ko indi. kon donc kon man mënuma gëm ni ñu naan non sénégalais yi nañ bàyyi lii bu ñu rafetal bu nit dee ñu non il faut nit ñu wax dëgg aussi. parce que man bokk naa si ñoon man bokk naa man man en personne li may wax man la engagé waxuma la juge Samba Sall mais dama ne la de 60 jusqu'à présent képp koo xam ne yaa tax tey sénégalais toog di yalwaan. ñëw ñëw ñëw Europe fii di yalwaan ñëw Europe fii kenn respecté wu ñu ñëw ci nekk fu ñu nekk ci àdduna bi kenn respecté ñu 60 ba léegi su ma sañoon waxuma la yàlla da leen di rey de mais dañ leen di weer di weri dañ leen di weer di weri lépp lu ñu amoon ci àdduna ñu fajoo ko parce que le juge Samba Sall dafa dee mais dafa dee te daal dee ci ay milliards la de si xaalisu contribuable bi la de boo xam ne tey boo demee këram njabootam waxatuñu dara malgré dañuy jooy dëj bi mais tey boo xoolee. ñun ñoo perte ah ñun sénégalais en fait ñoo perte parce que li tax ñu perte mooy que dañ koy dëj après ñu miiras nga dégg benn doomam kii am na tey benn trente millions kii am na benn quinze millions ki am na benn vingt millions seen seen seen seen huit terrain yi ñu amoon fële fii la mujj ñetti villa yi fii la mujj mais sénégalais yi ñoo perte. man su ma sañoon le juge Samba Sall du dee su ma sañoon day xoolal day feebar ba wow koŋŋ ñu koy weer ak weer yi ñu naan Samba Sall moo tëdd fële mënul jóg. léegi nag loolu dem renverser régime bi ñu ñëw fekkete beneen régime bu ñëw ba Sénégal dox fekk fi ay juges yu am valeur di doxal fekk fi ay juges yu am di doxal fekk fi tamit euh, ñu élire beneen président te boobaa yàlla na doon président Ousmane Sonko mu jël justice boo xam ni moom liñ liñ lépp luñ ko doon teg mu bañ ko tegee ñun en fait loolu lañ bëgg a wan population bi ni loolu la ñuy xaar man yàlla yàlla mi ko rey sax bu ma sañoon yàlla du ko rey dañuy waxante dëgg Macky Sall yàlla bu ko yàlla rey yàlla na ay fanam gudd. mais li mu teg Sénégalais yal na ko fekkaat encore une fois ci biir Sénégal dara bañ ko dal mais justice fekk ko biir Sénégal injustice bi mu tegoon nit ñi ñu teg ko ko famille aussi la même chose loolu moo loolu mu en fait loolu mooy parce que ñun sénégalais yi dañuy wax ne dëgg am na ñu bëri li ñuy wax àllaaxira bu dee dañuy toog rek lu wax ñu ne àllaaxira nañ xaar àllaaxira wala non yàlla baax na wala ëllëg si biir bis ci non mais mais bis penc beneen affaire la bu dee leen ñun ñëpp dañoo war a dee instant yi mais tey li ñuy doxal ci àdduna li ci mën a génne nit ñi mooy que ni ñuy gis ay fee man tey su ma la tooñee nga dem a bàyyi naa la yàlla ma jël say million lekk ko tabax si suma kër euh, takk si jabar jox ko suma yaay mu dem ci màkk def ci leneen ak leneen yow nga nekk ci mbedd mi di taaba taaba ba kañ ba deewaale ko nga toog di ma xaar alaaxira mais kon jarul ngay ñëw ci àdduna le sàmba Samba Sall Antoine euh, maire bi nduru euh, kii coréen Aïssata Tall Sall Euh, Malick Sall ñooñu ñëpp ñun dañuy dañuy ñaan yàlla suñu borom ñu fekkee fu changement di amee bépp métit boo xam ne tegoon nañ ko sénégalais ak comploteurs yi ñooñu ñu subiir la même chose que nit ñu subir parce que affaire bi trois jours la mais trois jours yi am na sénégalais yoo xam dafa mel ni si parce que tey li tax mu mel ni un an si ñoom da ngay gis ni carrément que ni ñetti guddi la yoo xam ne kenn nelawul. ñii amoon nañ seen job dañ ko ñii si lañ si lañ ñàkk seen liggéey ñii si la seen si la si lañ ñàkk seen loxo ñii si la seen seeni doom gaañoo ak yeneen ak yeneen te loolu boo xoolee ñi ñu ko teg ñëpp ce sont les comploteurs ak ñi nga xam ne ñoom ñoo entouré ñoom ñoo entouré euh, euh, complot bi. parce que tey euh, tey affaire bi waroon na xoolal kenn mënoon na bañ a dee ci nan ci que ni Adji Sarr porté plainte Ousmane Sonko ñu gis ne Adji Sarr kat xat na biir Dakar bi mu ponté Ousmane Sonko dem na seen dëkk Maya toog fa. wala dem na seen dëkk ji la toog fa fu mu mënti dëkk mu dem fa toog fa Ousmane Sonko def point de presse am parce que homme politique la après point de presse bi ñu ne aneka ko portable ñu ne mu ngi seen dëkk a ko mu dugg ci benn kaar njaga njaay di ñëw nit ñi saaga ko affaire yooyu police ne non ko commencé saaga comme que ñu ngi koy ko tribunal yooyu yëpp bu amoon bu feeyi xawoon xawoon duróog suñu société ni muy doxee kon tey lii du am kon tey Ousmane Sonko sax du wax ba ñu xool plainte bi mu bind ñu ne kii étude niveau niveau d'étude am ak fu plainte bi nekk du benn ñu xoolaat encore une fois entourage bi mu am yow bi ñëwee bi nga ñëwee euh, dakaar ak léegi ça fait presque una benn benn cinq ans six ans si cinq ans six ans Adji Sarr di di vivre de luxe di dem ay soirées yoo xam ne mën mën nañ la wax lu muy jar ñu ngi gis ko si ay villas yoo xam ni man man euh, bi ma nekkee Médina boo xoolee ci ci ci espace bi ma doon dëkk wala kër gi ma dëkk mais nekkul këru luxe mais tey te te boo demee à côté juste à l'angle am na ay mbokk ñoo xam ne ay ay seen i mbokk lañ ci même xeet boobu la mais ñu ngi liggéey foofu di daan seen doole te ñooñu boo gisee ni ñuy daane seen doole dignement la ñuy daan seen doole ci fóot yére ci def yeneen ak yeneen ah te da ngay xam ne lii carrément mérite li ñu am salaire bi ñu am mérite ak li ñuy ak li ñuy vivre c'est lu lu normal la mais Adji Sarr mënul jugee maye démb ñëw fekk ma benn sœur boo xam ni pendant toute sa vie mu ngi dëkk mu ngi dëkk mu ngi dëkk biir Dakar di mener sa propre te mënul di ko di ëpp di ëpp ko lu muy gagné te mënul vivre léegi su kon donc problème bi ñu am problème bi juge juge Samba Sall bii dee moom bokk na ci ñi indi problème bii xam nga wax tamit dañ koy assumer ñun li ñu bëgg mooy que ni ay juges yu am valeur ay juges yu am valeur parce que am na ñoo xam ne topp ñu kenn ndax ay valeur am mais nag quant à quant à quant à critère nit ki li nga xam ne moom lay def en famille loolu concerné wuñu parce que mu ngi koy def en famille dafa am loo xam ni tey man encore une fois ma waxaat ko mooy que ni Ousmane Sonko am na xam ne xamuñu programme mënuñu la wax ni bu Ousmane Sonko toogoon lii wëg lii wëg lay def billaahi wallaahi wa taala mënuñu la wax lii wëg lii lay def mais gis nañ ni waa ji mu ngi incarné benn valeur waa ji mu ngi incarné leneen ak leneen comprendre nga kon donc bu yooyu amee li nit ñi di def mooy que ni dañuy def le tout xool ki nit ki kat valeur bi mu am man naw naa ko ndax valeur naw naa ko ndax jikkoom naw naa ko ndax lii ak lii nga dem ci Guy Marius Sagna la même chose nga dem ci certains kilifa diine seeni valeur la nit ñi di xool nga dem seeni doom tey nga gis seeni doom di mandi ba tëdd si suuf kon donc ñooñu bu ñu amee lu ñu leen ruse rusee c'est parce que ñoom seeni waajur dañu amoon valeur am éthique am lu ñu jomb am lu ñuy bañ am lu ñuy rus te seeni doom amuñu ko moo taral loolu moo waral tey euh, affaire bi demee noonu nga gis ni ñii cër bi ñu joxoon seen i kilifa ñoom doom yi joxuñu leen ko kon donc le juge Samba Sall bu ñu ko nit baaxalal bàyyi leen bu nit deewee ngeen bugg ko baaxal bu ngeen koy baaxal na ko ay mbokkam baaxal li nga xam ne moom la séqoon ak famem mais li nga xam ne moom la séqoon ak Sénégal yëpp wu fi lu baax fépp si Khalifa Sall Karim wàdd euh, euh, maire bi maire boobu maire bi maire bi kanam gi di mel ni kii nu mu tuddati hippopotame te mu transhumé fan yi moom aussi Aïda Ndiongue mais xalaatal fu mu jaar ak ñoom mandat dépôt réquisir seen i bien presse bi génn ñu ne ay million lañ leen jàpp ci wàllu takkaay yoo xam ne am nañ ko ci ay valeur ak yooyu léegi tey ñu ñëw toog di wax ñu commencé nañu noo juge bi juge bu baax la quoi mais noo juge bi bu doon juge bu baax la bu xoolee dossier xam ne lii moo ci am aqulaayam ak taalaam mu atte Aïda Ndiongue atte Karim Wade atte xalifa Sall kon tey bu deewee lii kenn du ko ci wax waxuma sax waxu Ousmane Sonko mais tey bu deewoon lii kenn du ko wax mais tey képp guñ fa atteloo dakkal la muy ay ay Omar Sarr muy ay muy la famille farais bi nga xam ne tey suñuy million la ñu lekk tey ñooñu tey boo xoolee seen dossier kenn waxatu ci te juge Samba Sall bi moom moo ko yoroon ak ministre de la justice am moom mi nga xam ne ci cabinet am la ñooñu jaar famille Farès kon mënuñu comprendre tey nit ñi daan ni noo bu nu dee wax leen ci ci moom lu baax non Sénégal affaire gis nga mentalité doomu aadama yi dafa changé nekkul que ni dañuy xaar développement rek parce que euh, dañu fal Macky sàll dafa war a développer dëkk bi non mais développement ci mental mentalement d'abord dañu war a développer mentalement parce que li tax ñu war a mën a développer mentalement mooy que ni Sénégal egg na foo xam ni ci ci ci problème mu euh, ci problème mu nit ñi mentalement nit ñi léegi dañu avancé bu njëkk nit da nit da nga dégg ñu naan non leen ci moom lu baax wala yow koñ boobu sax doo fa jaar. mais léegi dépassé nañ loolu dañ lay waxal li nga xam ne moo am li nga xam ne mooy dëgg bi moom lañ lay waxal loolu dina tax tey ëllëgal si biir keneen ku fi toog xalaat ni yow di ngay dee Bassirou Gueye na xalaat ni day dee Antoine Diome na xalaat ni day dee Macky na xalaat ni day dee keneen keneen xalaat ni dañ suba ñoom ñëpp dañuy dee wala fi jaata maa ngi lay nuyu comprendre man mënuma ñu naan ma non juge euh, Samba dee na wax leen ci moom lu rafet non nekkul dañuy juble mais dañuy wax li nga xam ne fee yi nga xam ne moom moo am et puis nekkul moom kase am na ci yeneen nit yoo xam ni tey ay res seen responsabilité si quatorze personnes yi dee mu ngi fi te ay kilifa diine ñu ngi ci ay kilifa aada ñu ngi ci ay responsable politique ñu ngi ci ñooñu ñëpp yàlla na leen yàlla def nii bu leen yàlla rayul aussi na leen yàlla def ñu doon koo xam ni ñoo xam dañuy torox ci kanamu sénégalais yi seeni bien ñu jaay ko fajoo ko dem ba benn instant dañuy louer wala ñuy wut fu ñu dëkk wala ñu yéeg njaga jaay bokk ko population parce que suñu xaalis la ñu lekk quoi mais boo lekkee suñu xaalis nga jël bàyyi koog sa njaboot dee mais mais fii ci àdduna file xaalis boobu jeexul sa njaboot du ñu torox alaxira nag beneen affaire la yërmande yàlla xaj na fa yàlla mën na ko jéggal ci lépp lu mu defoon tàbbal ko àjjana loolu kenn mënu ci dara yàlla moom moom ay yëfam yàlla noonu la koy defee parce que bu ñu tubaab yi rawee tey bu ñu tubaab yi rawee c'est parce que ñun dañu jël yàlla indi ko indi ko benn instant boo xam ni fépp fu ñuy dem dañ ko siy teg mais yàlla bi mu ñu joxee xel ak xalaat ñuy xel ñuy xalaat lañu la pare ak ñun kon li nga xam moo war a am alaxira nañ ko bàyyi ak yàlla suñu borom li war a am alaxira ko bàyyi ak yàlla suñu borom yàlla suñu borom yërmandeem yaatu na yaatu boo xam ni le juge Samba Sall peut-être ci ay actes yu mu defoon benn bu baax mën na ko jël tàbbal ko direct àjjan loolu kenn warante wu ko mais dafa am loo xam ni rôle am la nañ ko bàyyi ak moom mais ñun sur terre nañu wax fee yi nga xam ni moom moom la nekkee woon bu ko defee ëllëg si beneen juge boo xam ni dangay bañ ñu waxal la loolu doo ko def. Macky sàll bu bañee ñu waxal ko ëllëg si biir bu wàccee ci pouvoir bi na continuer si trois ans yi ko def na continuer au moins sax jéem a rattrapé wu ak problème ak problème ak sénégalais yi. foofu la ñuy waxee quoi mais bu leen ñu gëmloo que ni le juge Samba Sall waroo leen ko yéene woon dee wala waroo leen wax ci moom lu ñaaw non mais du question wax lu ñaaw wax lu ñaaw mooy nga créer loo xam ne amul nga wax ko ci moom. mais li ma xasoon def ba pare il faut ñu fàttali ko sénégalais yi parce loolu buñ ko buñ ko deful ci live ñu ngi toog ci réseaux ñu ngi toog ci groupe whatsapp yi di ko wax. ñu ngi dugg ci car rapide di ko wax ñu ngi dugg ci Ndiaga Ndiaye di ko wax ñu ngi dugg ci super di ko wax yàlla nag moom moom moom ak yërmandeem fu ko lu ko neex mu def ci moom parce que jaamam la ñun ñëpp mën na ñoo wax ci moom lu ñaaw suba ba ngoon yàlla jël ko tàbbal àjjana loolu yërmande yàlla loolu yaatu na mais dafa am loo xam ni idéologie boo xam ne ñu ci bëggee continuer nekk ci du ñu defar Sénégal ki def dañ naan la yaa def ki wax dañ naan la yaa wax bu ko defee ëllëgal si biir nit ñi xool li nga xam mooy ay valeur ñu topp ko ci yow parce que dama ne la le juge Kéba Mbaye nit ñi ba léegi dañuy toog di fàttaliku valeur yi mu doon incarné ci ci li nga xam ne mooy mooy mooy institution yi valeur yi nga xam ne moom la doon eh, eh, incarné ci magistrature kon donc ñun buñu demee ba mel mën a am ku mel ni euh, le juge Kéba Mbaye mais noonu lañ soxlaa tamit tey fi jamono toll ñu am ñu mel noonu tey ñu ngi nii dañu wax waxu ma du jaa di wax ay waxu Cheikh Anta Diop tey ñu ñëwaat dañuy wax waxu Ousmane Sonko mais loolu la ñu bëgg incarné ci euh, jeunesse bi fi nekk ñu wax leen ni lii moo fi am mais nag bu dee ku rey nit boo deewee tey ñu ne non ah moom daal xam naa da ko rayoon rek waaye erreur waaye daanaka foo ko fekk da daan julli mais non dañ naan rayoon na nit mais tamit da daan julli loolu mooy wax ji quoi parce que ñun li ñu soxla mooy que ni Sénégal fi muy demee ba mën a mel ni tey euh, Arabie Saoudite wala mu mën a mel ni France ñun duñ ko fekkee mais tey ay génération dañ koy fekke suñu génération doom dañ koy fekke loolu la ñuy ñaan yàlla ko mais tey bu njëriñ bu dee nii lañ si nii lañ ko nar a bàyyi nga ñëw ñu jox la ay milliards. nga nekk ci ay dossier def ci lu la neex nga enrichir si nga dee aussi ñëpp di la waxal lu baax mais non bu boobaa ñu ñëpp nañ dem sàcc quoi ñu xam ne tamit ñu bàyyi suñu bopp ak yàlla parce que tamit àllaaxira yàlla moo fa nekk. parce que man man je vois très mal très mal ñu nekk vingt et unième siècle deux mille vingt et un ba léegi ñu ñuy jox ay ay discours Serigne Fallou Serigne Abdou Lahad ak ñu ñuy jox discours kii nga xam ne mooy mooy mooy mooy kii Mame Abdou Aziz Dabakh mais léegi seeni doom ak seen kilifa yi fi nekk actuellement di doxal seen tarixa yi lan moo tax tey mënuñu mënuñu porter même discours bi ou plus que discours bi parce que man mënu ma ko man loolu laa man ba léegi mënu ko comprendre quoi tey ñu ngi ñii dañu ñu indil discours wu kan euh, Kéba may ci wàllu magistrature mais tey dañ doon xaar tey. ñu indil ñu benn benn benn discours benn juge boo xam ne dañ naan kii ku gëmoon yàlla la am na am na boo demee ci wàllu administration ci wàllu policier am na ci am na ci euh, benn benn benn élément buy buy daw ci réseaux sociaux yi mais kooku dafa génn di conseiller policier yi ne leen ñii ngeen di dóor yéen a ànd ngeen di def ni yéen ak yéen ak yéen ak yéen yéen a yéen a far ci lii leneen ak leneen toog di leen ko wax comprendre ñun foofu la ñuy xaar instant yi Sénégal foofu la ñuy xaar sénégalais yi wax leen ni li gi di wax dëgg la mooy que ni ñoom maam muy suñu kilifa diine yi dañoo manqué dañoo marqué seen empreinte ci ja seen jamono. kon donc ñi fi nekk des fi muy ay sët muy ay muy koo mën nekk muy xalif généraux mais li ñuy xaar mooy nga ma nga manqué sa nga marqué aussi sa empreinte si si génération bi fi nekk. pas da leen di jox xaalis kase pas da nga leen di waxal lii rek mais non nga wax li nga xam ni tey ku toog ku weet yaat sa bàmmeel xam ni kii dafa jaar ci digg bi wax dëgg waxalul waxalul faralul état faralul population mais lii la wax. te lii mu wax population bi gis nañ seen bopp lii mu wax état xam na ni moo am tort foofu la ñuy xaar suñu kilifa diine yi mais man bu ma kenn gëmloo comme quoi que ni no euh, Malick sàll dee na wax leen ci moom lu rafet non dañuy wax ci moom qualité yi nekk ci moom ba njabootam yëg ko ba njabootam doom yi mu am muy ñuy jàng ñu xam ne seen baay lii la fi defoon ñoom ëllëg si biir bu ñu bañee ci réseaux sociaux yi ñu waxal lii ñoom seen seeni seen i doom ñu waxal leen lii donc nañ teg seen tànk fu gën fi ko seen baay tegoon rien pour ñeneen ñi fi des mais man damay ñaan yàlla man li may bokk naa si li may ñaan yàlla mooy que ni le reste ñi fi des bu kenn dee mais yàlla leen àqu sénégalais yi dal bañ leen di weer ak di weer ñu naan feebar na mu ngi hôpital xol bay dagg wala branché lañ ko raakol ba pare nag ñu ànd boole ko changement di am Sénégal ñu ñu siy teg seen bët. gis yeneen kilifa yor dëkk bi doxal ko si siraatal mustaqim loolu la ñuy ñaan yàlla mais man ñaanuma yàlla sax ñoom ñu dee. mais bu ma sañoon kenn ku nekk foo toog dañuy sexal ba keroog nga ba keroog nga fiy jugee fi nga toog ngay toog li nga lépp loo war a def foofu nga koy defee fi nga toog nga koy toog di ko fa defee ñuy toog di leen di leen sexal di leen di leen branché ay raakool di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan ba keroog ñuy ñuy sedd ba wow ba parce que bu ñu deewee nii rek ñu pata paramee jullee defar léegi yow image bi ngay gis mooy que ni ku dee tamit nii dañ lay defaree dañ lay dañ lay dañ lay la nit ñi ñaanal la léegi kon amul benn effet bu mu def ci sénégalais moom mi dee ak ak ak quatorze jeunes amul benn effet boo xam ne dakoy def Sénégal parce que même acte bi même geste bi même nañ leen di jullee ñoo bokk lépp ñoo bokk kon donc ban sens la am ban sens la am ci àdduna ñun ñu jànge ci ban jàngat lañ ci war a mën a jàngatee il faut ñu jël suñu responsabilité aussi wax li nga xam ne moom mooy dëgg parce que tey li ñuy incarné muy ay valeur ñoom lañ loolu la ñuy séntu ci ñoom mooy ay valeur li ñuy incarné ñoom mooy ñu naw ay nit ñu dëggu ba nga xam ne tey justice bi ëllëg si biir man man jaaykatu kooko bi ci koñ bi tooñ ma wala jaaykatu guro bi ci koñ bi tooñ ma ma man mi nga xam ne tey au moins yàlla dogal na maa leen ëpp doole donte maa leen maa leen maa leen ëppalee francs si su ma am am bu ñu demee si justice ñëpp ne new jarul ngeen di dem parce que juge yi ma gis dëgg la ñuy àtte mais fileeg loolu amul Sénégal kenn mënu ko defar kenn mënu ko defar fileeg dañuy continuer ci ay futilité ay ngénte ay tabaski ay tamxarit ay kii moom a neex kii diw la nii la sant bu bul ko porter plainte bu jaayee sa terrain du mujj fenn parce que nii la sant wala fii la dëkk ñoo juge bi sama xarit la fii léegi ñu ngi dem loolu seen duñ ko defar tubaab bi dama ne la fii doo fi dégg wasifa doo fi dégg nodd doo fi dégg dara te ñoom ñoo ñu gën a avancé lan moo tax ñu gën ñu avancé c'est parce que seen justice dafa baax ba pare ñoom ay nit ñoo xam ne dañuy incarner seeni i valeur nee naa leen encore une fois da gis tubaab bi dañuy mandi ba tëdd si suuf mandi ba tëdd si suuf jouru feet teewul bu ñu xëyee dem liggéey ci bureau bi kenn mënu leen mais am na loo xam ne duñ ko def parce que buñ ko defee justice dal seen kaw kon ñun euh, fi Sénégal toll waxuñu kii moo tëddee kii wala kii moo def lii ñun yooyu waxuñu ko ñun li ñuy wax mooy valeurs yi nga xam ne tey ñoom tey ñun ñëpp ñoo ko boq parce que ki dem di tëddee nit wala mu dem di tëddee keneen kooku jikko moom en personne la mais li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk moom mu war moom mu war ci mën a def daram jël ay valeur def ko ci ba Sénégalais yëpp gis seen bopp ñun loolu la ñuy toppee kenn ku nekk ci homme loolu la ñuy toppee. xalifa maa ngi soon yaa ngi ma doon woo léegi maa ngi lay jël si léegi incha allah c'était juste rek pour wax sénégalais que ni euh, fi ñu bëgg a yóbbu ci affaire euh, juge bi ñun duñ ko nangu parce que tey mentalité yi dañu évoluer léegi fi nit ñi toll liñ la war a wax dañ la koy wax parce que boo ko waxul rek doon naa féq te liñ ci bëgg mooy que ni yeneen avocat yi nekk ak yeneen juge yi si nekk ñu jouer leur rôle ñu jouer leur rôle parce que mënuñu fi toog Euh, depuis le juge Kéba Mbaye jusqu'à présent amoo fi beneen juge bu ñu la mën a taggal ne la li ne mel kenn laa gis ñu koy tagg kenn laa gis ñu koy tagg ku nekk ci administration mooy ki nga xam mooy le commandant Mbeng de brigade de recherche koo wax ñu ne la noo bu ñu la fa boo amee garde à vue foofu dina la jox nga lekk dinañ la jox nga naan say droit dañ la koy jox boo waree julli da ngay julli même bu ñu lay jàpp da lay laaj ba xam dara metti la wala dara méttiwu la mais déjà man xaw ma commandant Mbeng billaahi wallahi taala xaw ma ko mais da ngay xool li ko nit ñi mais pourquoi pas loolu war ñu ko mën a juger képp koo xam ne tey yaa ngi ci police bi wala yaa ngi ci administration bi yaa ngi ci wàllu justice ak leneen ak leneen mais loolu day tax yow tey boo amee problème noo tu préfères dem gendarmerie de euh, euh, dem gendarmerie brigade gendarmerie bu Colobane tu préfères dem foofu parce que da nga naan non ñëpp la ñu seedeel ni commandant Mbengue boo fa demee amul Jean amul Paul ñëpp la boole yamale kon donc sama dossier su ma ko fa yóbboo si wàllu li nga xam mooy ni ñu ma war a ni ma war a traité ah pour ma pour ma jël pour son procès verbal dañ dama ci kontaan mais ni nit ñi kontaanee foofu ci procès verbal bi noonu la ñu war a mën a kontaanee aussi si justice bi nga xam ne bu ñu nee diw mooy àtte dañ naan non na seen xel dal moom li am ci digg bi rek foofu foofu la koy kal mais loolu avancement Sénégal si foofu lay déparé mais bu ma kenn gëmloo que ni bu ma kenn gëmloo que ni non le juge dee na wax leen ci kilifa la non et puis quatorze quatorze quatorze ñoo dee wala quinze jeunes ñoo gars yi yëgaluñ ko seen yaram waa ji dee mu mel ni moom léegi bakkan boobu moo gën yeneen bakkan yi bërki démb bi loolu lañ gis si làmb ji ñu ñëw indil ñu coon sec ñun non une minute de une minute de silence pour coon sec alors que fàtte ngeen ni quinze jeunes dee nañ li gënoon rafet sax même bu ngeen def simulation sax ngeen ne non ñu def une minute de silence parce que pour pour ñu fi jógee fan yi moo xam ñi nekk ci Covid moo xam ñi nekkoon ci manifestation mais non boo xoolee tey li ñu organisé li Gaston Mbengue organisé làmb ji soirée yeeg yooyu yëpp même bu ñuy wax boolewuñ ci sax ñi dee. boolewuñ ci sax ñi dee quoi mais léegi ñoom ñi féeteeg ñoom ñi féeteeg ñoom daal te ñu dee ñooñ ñooñ ñooñ ñooñ ñooñ nit ñi nga xam ni war nañoo dee Sénégalais yëgal yëgal ko seen bopp quoi. mais benn instant doo doo doo comprendre quoi doo comprendre ñun léegi ñun nan lañ bëgg defaree Sénégal ci yan condition lañ bëgg defaree Sénégal. parce que dafa am dafa am condition yoo xam ne bu ñu ci bëggee defar Sénégal bu ñu ci bëggee defar Sénégal du dem il faut ñu am ñu am dëgg ba nga xam ne yow tey da ngay yamale sa papa ak paa bi ci koñ bi bu ñu amee problème nga ne non naa dem naa bàyyi comme que man sama sama papa la naa bàyyi nit ñi àtte naa bàyyi yoon def liggéeyam parce que yoon bi ma am wóolu naa ko ñun foofu la ñuy xaar mais benn juge bu dee ngeen bëgg ñu gëm loolu leneen a leneen allo salaamaaleykum. salaamaaleykum grand biso. waaw Khalifa maa ah wala fi jaata wala fi maa ngi lay ziar. waaw dara ma ma bàyyi la rek nga ma bàyyi la rek nga waxtaan ak gars yi parce que su ma la dugal ci biir man a yow suñu déggante dootul neex quoi ah. acca bisimilah. buñ dee quoi. non non mais mais non buñ dee. no wolof yi bu ñu dee mais man dama bëgg man dama bëgg dama bëgg ñoom affaire yi fekk leen fi mais bu boobaa bu ñu amal njariñ société bi. Zo. waaw bisimilah dégg maa ngi woo ci di laaj ñu ji bi di expliqué ne dafa am benn bu sénégalais sénégalais yi man je me dis que gars yi di wax c'est pas que dañ dañ gars yi sont content nit ki kontaan kenn du kenn du kontaan. benn bu dee quoi même yéefar sax bu dee sax doo kontaan ci si deewam quoi te am loo xam dafa am te gars yi gars yi dañ doo dañ dañ ci war bàyyi xel diggante le huit bii passé le le huit avril bu le huit la amoon na juge Samba Sall ñu bari ñu bari parce que intérêt c'est pas la personne du juge Samba moo moo ñu intérêt kenn xamu ko woon mais diggante affaire ba mu amee boo mu amee gars yi ci dañ jël fotom tekk ci réseaux sociaux yi kii mooy juge Samba Sall gars yi commencé di gëstu si kii man si laa xamee ne sax ndete c'est le juge boo xamante moom moo jàppoon Karim Wade moo tëjoon Khalifa Sall Imam Ndao moom moo ko jàppoon moo tax moom jël gars yi dinañ yóbbu mandat def lu ko neex quoi parce que nekkoon mu foog ne moom du jugee moom il fait quelqu'un boo xam c'est moom day def lu ko neex lépp loo xamante ne lu ci lu Macky Sall soxla rek moom mooy ñëw am taxaw ci parce que le juge sec moom dafa dem ba ci biir xam ne affaire bi tegul ci yoon mu xool affaire ba ci biir mu bàyyi mais moom comme moom mooy géeree moom la Highlander lu ñuy wax moom mooy Highlander moom du moom du dee quoi moom mooy rek moom mooy angu dessus bi moom xamul woon ni yàlla mu ngi koy xaar le huit avril. te Sénégalais yi man je man dama dama damay dama yëg Sénégalais yëpp ñii di wax naan non gars yi bu ñu expliqué comme Karim mi génn démb di expliqué. non Karim dafa juum lu nekk rek da ciy génn di expliqué quoi dama dégg dafa juum dafa juum moom dafa foofu. léegi léegi jeunes yi dañuy dañuy wax no Karim c'est quelqu'un waroo sax yéen yàgg ci affaire bii nii daf ko doon nox comme yeneen ñëpp Guy Marius Sagna bind na bind na sax ne noo gars da koy booy di xaw ma le juge da koy wooye sama niveau mais dafa naaj naa sax nag mais ku nekk sa xol boo ko tijjee ce juge là yéenoo ko mu deere mais di nga xam ne kii c'est un faux type c'est un pauvre type c'est un quelque chose il fait partie des gens ñoo ñoo yàq Sénégal parce que lépp luy du lu bon si nguur la si ñoom lay jaar mais xam nga rek yàlla mu ko ramoon par le Sénégalais yi le le le huit mars nañ dem defaat seen poste yi boobu ñu tey dafay fotam ne kii mooy Régis Tamba Sall boobu kenn xamul woon le huit mars day day nañ dem xoolaat seen poste yi. Mhm. parce que nekk ñu bëri saaga nañ ko te say say c'est un corrompu wax lu ko lu leen neex. Mhm. léegi mu tey le huit avril kay bëgg ko def ko moom cinq ans non. en tout cas non mais Sénégalais ñoo war a a bàyyi loolu quoi. yow nga ne na nga ba mu dee nga fay naan non nañ ko ñaanal dugg fi gën man dama ñaanul man ña jëlee ma liggéey naa wàcc ma ñëw sama copain bi ne ma eh, il paraît que le juge na may ça m'a fait ni chaud ni froid je m'en parle je m'en parle ku jëntuwu ma ko sax. Mhm. jëntuwu ma ko parce que man dama dégg di fait partie des gens yu yàq Sénégal te loolu noonu ñuy bind seen seen page Facebook wala ñuy toog di di ci expliquer c'est pas qu'ils sont contents mais war lu nekk seen xol parce que du ñeen naaféq Sénégal dafa na naaféq parce que y a des gens yoo xamante ne ñoom tey dañuy bëgg a jaune tey soo ñu perte say war dañuy Pambalo kenn ku ne dafay baax benn yoon da ngay zone wala nga continuer zone wala nga verte nga continuer verte. mais mënoo tey ba zone tey suba nga verte suba nga verte nga noir non non. bon j'aime pas les gens yi wax sax naa man forme fenn. merci beaucoup non non man damay def sama liggéey man non ma forme fenn di dañoo fooy far. da ngay mën a si nekk dans la drogue sur la vérité wala nga toog. dëgg di quoi mu leer mais doo nekk ne dañoo ñun dañuy def suñu liggéey du non dafa am dafa am fooy réew fu muy toll nit sa àdduna wala sa nit dafa am fu ngay toll da koy jël xam da ngay nangu ne moo attends ñoo do Sénégal bi mi ngi dox quoi Macky Sall mi ngi liggéey je le défends nga assumer que quoi man j'aime ça nga assumer ne man non Macky Sall mi ngi liggéey moi j'aime ce qu'il fait moi je l'adore nga défendre ko jëlee ses positions man j'aime ça nga xam ne fa ci non mais loolu mooy yoon position quoi wala fii mais bu nekkee tamit bu nekkee tamit da nga da nga gis da nga gis ne dëkk yow sa liggéey ba nga ku nekkal liggéey bu muy def yow yaa ngi Espagne mais yow yaa ngi jël benn position yaa ngi taxaw yaa ngi non Sénégal man lu tax may combat yaa ngi jël sa temps yaa ngi def sa live tu te bats pour une cause nga ne non Sénégal il faut ñu wax comme ñeneen ñi ñu ngi koy defee ku nekk jël di toog di jël sa live di wax ñi di wane seen bopp ñi di expliquer c'est pourquoi c'est pour conscientiser la jeunesse conscientiser la masse ñu xam ne ñun suñu Sénégal ñoo ko moom on pouvait rester là si ñoo nekk soo sans parler ko mais dañuy xool yéen benn position am ñu jëlee risque te Ousmane Tounkara mi ngi fële. Hmm. si ndax day dee Sénégal mooy loolu. gis nga ko Assane Diouf il a pris pas que mooy loolu def mais loolu noonu honneur am la mais buñ ko delloo Sénégal honneur am parce que mun néew néew xeexal na Sénégal moo tane ñoo xam ne seen xam nga voilà naa seen caen di hmm. expliqué naan non dëkk bi doxul te buñ génnee c' est les naafeq c' après di di digal yeneen gars yi c'est ça il faut choisir mais dafa am Sénégal la moo bëree nit yoo xamante ne dañuy toog naan non man forme fenn non yaa ngi gis lii doo bon genre nit lañ quoi. merci beaucoup. kon nit ki di nga gis ni seen tam nga ki mere ko tout tout par pendant un an wala dix ans nga ne kii formation la góor jigéen la dugg na fi benn jour rek bu ko gëm bëgg na la bëgg na bëgg na. Khalifa maa ngi ñëw. le juge là ñu sonal parce que y a eu quatorze personnes qui sont mortes. dëgg la. merci beaucoup wolof yi merci wolof yi ma jëli gars yi ah. affaire yooyu euh, ñuy ñuy ñuy ñuy gundaan ndax léegi nag moom il s'en fout du reste des 16 millions de Sénégalais yuy souffrir donc yow am nekk su et moom moo yoroon moom mooy moom mooy le doyen des juges. merci beaucoup le doyen des juges c' est pas n' importe qui. merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup fii ministre c' est pas n' importe qui c' est des wala fii sa dernier mot s'il vous plaît sa dernier mot s'il vous plaît ma jëli gars après. pour pour wax rek na Sénégal dañ pare naafeeku quoi na nga xam ne kenn soxorul kenn du ñaanal nit mu dee mais tamit fii lu fi ne dañ koy wax ah. dañ koy wax c' est prendra aux autres. te keneen bu ñu dee bu sax sonnaa du leen nekk di recette recette recette pistol su ñoom nekku ci kii crève en enfer ñoom ñëpp maa lay ziar gars jaajëf merci beaucoup euh, Khalifa Diop maa ngi ñëw ci yow euh, juste rek pour wax leen que ni nekkul que ni parce que am nañu am na ay sénégalais yoo xam ni jour bi problème bi amee mu metti leen am na ñoo xam ne dañoo jàpp julli ba set ñaan yàlla képp ku nekk ci problème bi yàlla ñu yàlla àtte am ñoo xam ne dañ ne yàlla buñ ko fekkee kenn ku nekk ak façon bi nga ko ñaanalee quoi nañuy waxante ñu bàyyi ba mu dee ñuy wax leen xam nga liñ ci jublu mooy que ni dañuy dañuy bëgg que ni tey Sénégal le reste des juges le reste des avocats le reste des magistrats ñoom ñëpp ñu xam ne tey lépp li ñuy def sénégalais yi lañ koy defal nañ bàyyi xel ci loolu parce que tey buñ ko taggee wala ñu taggee ko tagg boo xam ne teguñu ko ci yoon suñu bopp la ñuy nax te bu ñu bëggee changement Sénégal nañuy wax ni fee yi demee ak ni affaire yi amee bu ko kenn créer fee boo xam ni amul léegi nag loolu mooy loolu mooy en fait loolu mooy enjeu combat bi tey ñëpp dañu d'accord que ni Macky Sall nekkul problème mu Ousmane Sonko nekkul Macky Sall moo dem jàpp ci loxo Ousmane Sonko dem fekk ko ba mu problème mu Adji Sarr am ak yooyu mais bi mu amee il s'est def ci profité wu parce que adversaire am la te ñi ko ci ñi ko ci ñi ko ci ñi ko ci buux ba mu nekk ci tey ñooñu tey ñu ngi ñoom ñooy taxaw ba à côté kuy saaga ndey Macky Sall ngay njëkk a saaga ndeyam kuy wax Macky Sall ngay njëkk a waxal donc kon yooyu fee yooyu bu ñu fee yooyu la ñu bëgg mu jeex Sénégal te loolu pour mu jeex nii moo ko mën a dindi mooy que ni li nga def ak fi nga ko defee ak ni nga ko defe ñëpp woo taxawaat wax ko. jaar naa la sama général Khalifa. waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw Léwo maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi yaa yi ñu nekk ligne bi ñëpp. ma bàyyi la direct rek nga waxtaan ak gaa yi parce que suñu bëggee échanger. ma ne yow yaa ngi may ma bàyyi la nga waxtaan ak gars yi man a yow bu ñu bëgg a échanger duñ déggante parce que yow dama lay def direct te tu pour ma pour nga dégg ma bu baax il faut ma dindi direct bi donc kon ma bàyyi la nga développé ak gars yi ah. waaw waaw kan Khalifa ah? ok ok Khalifa. waaw jaajëf waaw wala fi jaajëf ñu ngi lay nuyu bu baax Léwo. yaa may dégg. waaw yow rek la ñuy déglu. waaw ñu maa ngi lay nuyu bu baax Léwo di nuyu wala fi jaajëf moom a génn di leen ziare bu baax ci liggéey bi te di ko ànd ak yéen di ko rafetlu ñun ñëpp. Léwo di la nuyu bu baax. di nuyu hmm. li fay te di ndokkeel Sénégalais yi ci taxaw gi nu taxaw ci Samba Sall. te muy Samba Sall ak ak ku dul Samba Sall ñoo mën a yem ku fi ci doon ku ne ci dëkk bi fii. boo fi nekkee di lekk di askan wi war a lekk nga di ko lekk. li nit ñi war a lekk nga di ko lekk. nga bokk ci ñi séddoo sunum réew. bokk ci ñi nga xam ne sunum indépendance. bi ñuy wax ni naan indépendance di ko feete yaa ko naxante jël sunu justice tee ko jël sunu maanaam ay sunu bite national tee ko maanaam jël sunuy police tee leen jël sunuy gendarme tee leen wëlbati ko dem di rey ak sa askan kooku léewoo bu bu la yàlla dogalee ba nga faatu kooku kenn warulaa ñaanal te ku la ñaanal ku ne mën nañ ko fi daam naa fekk ñun duñu genre boobu ñun duñ ko ñaanal te suñu yoon nekkul ci moom fu ko yàlla yóbbu baax na buñ ko mënoon a suwerte sax yàlla bu ko yóbbee safara sax baax na parce que ñoom safara lañ mérité mérité wu feneen man nga maa may tuuti ma développé parce ay ay ay nit lañu duna ay xar duna ay nag ay nit lañu ñu am lu ñu naqari léwoo dëkk ci am réew muy Sénégal yàlla moo na fa tànn ñu dëkk fa bokk ca réew ma yàlla dogal léwoo ab carte d'identité bu ko fa waree am dañoo war a joxe dara léwoo passeport boo ko waree am da war a joxe muy réew moo xam ne kumba amul ndey ak kumba amul ndey moo fa am muy réew moo xam ne ab la mooy ki nga xam ne santul aw sant wala ki nga xam ne maanaam bokk ci gouvernement bi muy réew moo xam ne li woo aussi pour boo fa bëggee nekk bëgg faa dund maanaam foog nga dégg français rek français déggal français rek boo déggee français rek mën a jot CSK TV trésor public loolu neex jël muy réew moo xam ne maanaam diina ja wérul ndax diina ju wér ñi fay sàcc mais Moussa yow bàyyi nga ma Moussa Diakité ñi ñëpp ak Samba Sall ñuy gaañu ak keneen ko mën ci doon ak su fiy jël fi jàmbur rek soo ko xoolee dana julli lay wuyoo te boo ko xool boo ko waxoon dana la julli la kon réew mu mel noonu bu ñu fa dëkkee Samba Sall mii gaañu buñ ci mënoon a kontaan dañ ciy kontaan dee kenn yéenewu ko nit bu buñ leen a mënoon a ñaanal benn par benn yàlla di leen jël sunu ñaan di ko nangu yàlla dañ leen di ñaanal ñun ñëpp li ko tàmbalee man nag samay wax du neex du ma fi nekk di ko ray 1960 ba léegi nii 1960 ba léegi tous les politiciens parce que 60 ba léegi Sénégal fi mu toog jógu fa 60 ba léegi amuñu lu lekk 60 ba léegi amuñu lu naan 60 ci la ñu négocier suñu indépendance ne ñu am nañ ko di ñu nax phosphate boobu noonu 60 lañ ko tàmbalee jël di ko jël. pétrole bi ñu am 60 ba léegi ñu ngi koy jël comme tous les politiciens 60 ba léegi nii képp ku fi faatu buñ la mënoon a souhaité nga dem sabara ñun dañ la koy souhaité kenn yéene wu leen ko mais ñii dañu ay nit ñu bon ñoo xam ne ñii dañoo war a dee benn par benn ba jeex tàkk muy Samba Sall ak keneen ku mënti doon parce nit ñu bon a bon a bon lañu mbaam sax ca kër moo leen gën ay nit ñoo xam ne riba la ñu dundee nit ñoo xam ne sun alal lañ jël téye ko naqare ñun ñëpp di wër kenn ku ne xamatoo foo jëm sénégalais yi ku ne di dem ku ne jommi ñu ne dem jël ndaare fu ñu dem ñu dàq ñu ba bërki dem dem bu espagnol bi fi mujj ñëw di signé ci lépp lu tubaab bi yëkkati teg ko ci loxo sénégalais bi rek pour mu war ko jox njaboot bi rek gouvernement bi jël ko lekk ak ku manti doon wala ànd kooku sëriñ gerte gi ni bay bu ñu béyee gerte gi bala ñu am gerte gi fi ñu toll nii daanaka fi ñu toll nii Serigne Saaj gouvernement bi ñoo koy ànd di kii Samba Sall mi nag bokk ci Macky Sall du dara ñoom ñëpp kenn ci nitu dara kenn koo xam ne daal yaa ngi dund ñun lay souhaité bu fekkee ne ñun duñ ñun moom wax dëgg yàlla bokkuñ te leen ñaanal ñun du naafeq ñun du naafeq bokkuñ ci ñu ñaanal ay Samba Sall yi kenn parce que Samba Sall deful ci luñ fi war a ñaanal li mu def lañ ko war di wax ñun du naafeq Samba Sall lu fi def sàcc la fi nekk woon ak jël ku Macky Sall war a tëj Samba Sall lay tëj loolu la fi nekk woon ñun du naafeq naafeq boo xam ne dangay ngay xëy suba gaañu ñu naan yàlla na ko yàlla yërëm déedéet ñun du la ko ñaanal mun la doon ñaanal dañ lay ñaanal yàlla la yàlla yóbbu sax sawara ak keneen koo mënti doon ñi deewagut buñ leen mënoon a ñaanal liñ leen di ñaanal yàlla leen yàlla rey benn par benn ci dee parce que ñii dañoo war a dee ñii defuñu fi dara lu dul toroxalu askan nation sunu six mille milliards Aliou Sall jël ko kon kooku bu Aliou Sall deewee man du mën naa fiq lu ma fi taxaw naan Aliou Sall yàlla na ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla yóbbu sabara te yàlla na ñuy yàlla àtte ak politiciens yi yàlla na ñuy yàlla àtte ak politiciens yi te yàlla day nu àtte fii ci àddina parce que yàlla yëf yë yàlla affaire bi jël na ko te Ousmane Sonko bàyyi leen ko Ousmane Sonko du seen morom Ousmane Sonko am na lu yàlla def ci moom toujours ma wax leen ko Ousmane Sonko moo ëpp sax garaat xalifa général yi xalifa général yi fi ne Ousmane Sonko sax la ëpp garaat parce que yàlla moo koy def yàlla dafa ñëw taxaw te dëgg la yàlla bëgg te yàlla mi ngi ànd ak ñu nekk ci dëgg Samba Sall ak koo mën a dem sa ñetti fan yi bàmmeel yàlla na la fa malaaka yu dóor ba ngay bëgg a dee Samba Sall yow. man bu ma ciy ñaan loolu lay ñaan sa ñetti fan yu bàmmeel yàlla na tàkk tàkk jër sa kaw Samba Sall man Xalifa maa la ñaanal lii sa ñetti fan yi bàmmeel yàlla na tàng jër sa kaw yàlla na mel ne dossier Ousmane Sonko bi sa kaw ak Macky Sall ñi ci deewagul kenn ku ci ne boo deewee préparé na li la ñaanal kenn du la ñaanal lu bon fu ngeen dugg baax na fu leen yàlla yóbbu baax na fu leen yàlla yóbbu baax na bu ngeen gudd fan sax boo baax teel leen a dee benn par benn ba jeex tàkk Sénégal yi jóg leen toog bàyyi leen naa fekk boobu leen seedeen nit koo xam ne moo ñii ñoo ñu toroxal toujours ñuy jooy bu ñu génnee dem ñu rey ñu bari ki dem juróom benn fukki xale lañ ci rey si cinq cent personnes ñoo dugg ci gaal gi dee bari ci dem mu quatorze personnes ñoo dee amul àtte juge bi maa ko moom ku ànd ak man ma jël ku ànd ak man ma dóor ku ànd ak man ma nangu ku ànd ak ma dóor ah man maa moom procureur yi procureur bi nii man la àndal kii man lay contre jëlal dóor daanu ñuy dunde noonu à chaque fois ñuy dundee noonu ngeen taxaw fii Samba Sall dee ci Samba Sall yàlla jël ko seppi tamit deew Samba Sall taxaw leen ci tey seetlu te nekk ay nit bu leen nekk yi def Samba le 8 février le Samba Sall le huitième huitième six huitième de six la ñu génn ci loolu Samba Sall le 8 février mu dem fekk Ousmane Sonko te tëram di ko tiré bomb ci jàmbur bi set wecc koo xam ne mos a jëlee fi jàmbur ñun ñii ànd ak moom ci dëkk doo la ñu ànd ak moom. Tamba Sall jógeeti fa le huit fév le huit mars mu convoqué ko Tamba Sall jógeeti fa le huit février yàlla convoqué ko te yàlla yi démb di moo ju tey ji ñëpp la àndal li woo le léwo le combat continue merci beaucoup Khalifa Moustapha Niass ak keneen ak keneen depuis 1960 ba léegi. déet bàyyil maam Niass Madické Niang man sama naqar yi Madické bi ma ko gisee ci kanamu sëriñ bi dafa maa métti lu mu dal rek Madické Madické Niang ci la bokk Madické ba sëriñ ba ak Khalifa ak léwo lañ yemale te yàlla yemale mu nekk ñaa loolu génnewu la ci da ngeen toog yi ñëpp benn par benn di dee benn par benn ba jeex ku fi dee bu la munta saaga ndey dana mën a jël sunu genn bi tàllal ko di saw sa bàmmeel xalifa yàlla yóbbu maa ngi jëli gars yi maa ngi jëli gars yi merci beaucoup merci beaucoup la nag boo xam ne non gis naa loolu wax muy lu ma que du ma naa féq gis naa loolu gis naa loolu gis naa ba ci laa bokk musuma ci am dërëm. dëgg la jamaa bi ci laa bokk musuma ci am dërëm. dëgg la dégg nga ma la wax. dëgg la bokk ci réew mi musuma cee faju musuma cee lekk musuma cee naan. merci beaucoup kon kooku yàlla dana ko nangu. merci beaucoup bokk ci am lu ma naqari. merci beaucoup ma naqari. maa ngi ñëw merci beaucoup ñii nga Italie ñii nga Espagne fu ne dafa taxawaalu. ma dëkk ñaa toog ak six ba yàlla na leen yàlla sa di rey benn par benn. merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup gars yi xalifa nag xol bi dafa dafa jeex parce que li ma leen wax la parce que tey le juge Samba Sall gis nga li xalifa di ñaan ni am na ñoo xam moment bi projet bi amee lañ ko doon ñaan man moom bokkatuma si ñuy ñaan ñoom yàlla nañu dee non man li may ñaan mooy que ni yal na sénégalais yi gis seen àq si ñooñu si kaw suuf ba pare léegi nag li am àllaaxira moom yàlla moo xam yàlla bu ko neexee mu dugal leen àjjana mais seeni milliards suñu milliards yi ñuy tëdd yàlla nañ ko fajoo yàlla nañ def ba seen doom yi dugg ci car comme doomu doomu doomu yi man loolu laa leen di ñaanal quoi man bëgguma ñu dee parce que bu ñu dee ñu dañuy perte quoi bu ñu dee léegi lan la ñuy wax ay milliards lañ te doon seen famille koy séddoo seen famille seen doom yi kon ne nekk à l'extérieur di jàng ñu jël suñuy fonds di leen ko fayale non man li ma leen di souhaité mooy que ni ñu toog fii mais bu ñu fi toogee aussi bu ñu amal benn njariñ société bi bu ñu amal benn njariñ société bi dañ toog di ñu leen weer ak a weri di faj sexal di leen ay raakool branché leen ay raakool man ci ci ci côté boobu laa leen di xaar ci côté boobu laa leen di xaar quoi parce que effectivement nekkatuma nekkatuñu nekkatuñu ci benn benn instant boo xam ne dañuy toog di non parce que tey ku ci xas dee c'est fini quoi ku ci xas dee c'est fini gars yi yéen ñëpp laay jël si incha ci kàttanu yàlla man jo maa ngi ñëw comprendre nga foofu la ñuy xaar sénégalais yi jàmbaar maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga waxtaan ak gars rek vite fait bu dee bu dee mën na nekk parce que am na keneen ku ma doon woo léegi aussi si numéro privé xam nga parce que tamit dama bëgg Sénégal yi kenn ku nekk nga exprimer wu parce que lii nii buñ ko continuer dina tax beneen juge bu fi mën a nekk oui allo. waaw salaam salaam Zou. waaw jàmbaar maa ngi lay ziar. laa waaw acca bisimilah laa yaa ngi ci biir ma bàyyi la rek nga waxtaan ak sénégalais yi gis nga as affaire yi nu mu demee te gis nga yow. yow pour te dire yow bokk nga ci ñi gën a soutenir Abdou Karim Gueye réaction am ak ñu mu génne peut-être moom moom la engagé aussi encore une fois mais am na ci li ma la bëggoon laaj ba xam gis nga ci sa bopp wala gisoo ci sa bopp mais man jàpp naa ni man en personne erreur de communication la def foofu parce que ñun bu ñuy wax nit ay valeur dañ ko bëgg mu doon royukaay ëllëg ak si biir quoi mais bu dee ku dee rek ñu wax ci moom lu baax kon ñi fi nekk tamit mën nañoo di def lu bon mooy ba état bi te bu dee te dañ ne tey bu fi nit wàcceer nañ ko waxal lu baax non mais bu ko liggéeyul kenn waru ko ko waxal ton ñun war nañu ñun population bi ñun tamit am nañ am nañ ci faute de responsabilité am nañ ci Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.